Euh, noonee rek lañ koy ñaanalee euh, Serigne Amdi Modou Mende Fall moom fi toog jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall euh, di ko ñaanal tamit suñu wasila si yoon bi kookee di Maulana Cheikh nga xam ne bëgg nga kaa liggéeyal sa maam jooju Cheikh Xadim suñu ko ta nga ànd kaal mbokk a ngi bàyyi xel seen émission bi di Mawridu Ridal Xadim ñoo ngi amaan mbégte bu baax si jàkkaarloo bi ngeen jàkkaarloo ak ñun waaye it am nañ mbégte mu ko raw si jàkkaarloo bi ñu jàkkaarloo ak yéen mbokk yi tey jii nag ñu indi leen comme thème si suñu émission euh, thème boo xam ne c'est de l'actualité envers le mouridisme loolu moo di euh, l'éthique dans le mouridisme ñu gën kaa parampàccee ci olof mooy jub ak jub si yoonu murid loolu nag ñu koy ànd ak suñuy gan yu tedd ku si mel ni Serigne Moustapha Guèye di boroom xampam di jàmbaar lool si yoon bi di ko ànd ak tamit si wàllum animation rajas bi kookee di Serigne Mbacke Seck kon xam naa noonee rek la ñuy daal di def kàddu gi sëriñ Moustapha Guèye mu daal di nuyu mbokki téléspectateurs yi kon sëñ Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi alladi minna talab ixlaasa sain wa maraata adab man yanduru quluba wa sharaira duna alladi minna yakunu zahira summa salaatu ma salaami yatbahu ala alladi fiina gadan man bi fadaa ilu hudaa taxalla wa an rada ili rada taxalla sayduna kaasif an alguma wa alihi wa sabi wal umma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibé yi waaleykum salaam yéen ñi suivre seen seen bii di Majmahun Nurayni TV ñu ngi leen di nuyu leen siyaar ci jotaay bu am solo bi di Mawridu Ridal Xadim fas yéene ko ànd ak mbokki taalibé yi ngir indi ni ñu ko waxee ay jàngat yoo xam ne yoon wi soxla woon na ko waaye bu ne yoon wi tam mën nañu wax ni lislaam ndax yoonu ci biir lislaam la jàngat yooyu nag di lu am solo loo xam ne mën nay fàttali taalibe yi li nga xam si moo doon xëdëf bi leen sëñ bi woo ak la ko jiitu lislaam ji nga xam ne bi sëñ bi woote itam ci la samp ay tànkam nan lañ ko gën a mën a jàngate ba seenu dox gën a rafet ak lool loolu itam yan modèle ay niiral yoo xam si wéyoon nañ ci mm-hmm. jaar ci jaari moo xam ne na sëñ bi bëggoon ku ni jaare jaare nañ fa ñu mën ko fàttalikuwaat kon Mouhamed ginnaaw bu ñu la nuyoo la nuyu bu baax a baax sëñ Mbacke sañ Mbacke Guèye. Mhm. sëñ Mbacke Seck waaye mu nekk Guèye ci lay ci lay gën a bëgg. nuyu itam techniciens yi nga xam ci ñoom ñooy saytu jotaay bi. Mhm. delawaat kàddu gi incha allah. jërëjëf sëñ Moustapha kon sëñ Mbacke. asalaamaaleykum wa rahmatullah di ziar sëñ Moustapha. Guèye mii nga xam ne xam naa ne moom naa ko bañ a sant la sekk rek nga xam ne moom ku ñuy bàyyi xel la di ko topp ci ay jotaay yu baree baree bari wax dëgg yàlla ci xam-xam bu sell bi nga xam ni mm-hmm. mu ngi koy génne di ko jëmale te mbokk taalibe yi di ci jariñoo xam naa maa ngi ziar mbokk taalibe yëpp ñi ñuy seetaan ak ñiy bàyyi xel émission bi ak xam naa ma kii foofu rek si moom it sëñ Bakke eh, si solo woowu Euh, xam naa rek balaa ñuy daal di xuus si li nga xam ni mooy waxtaan wi euh, dañ lay daal di jox waxukaay bi rek nga daal di bégal tuuti si ay xasida euh, mbokki taali bi nga xam ne ñoo ñi seetaan kon bismillah suñ bekke alhamdulillahi alkarim zilminan ala shiqaali bi furudin wa الحمد لله الكريم ذي المنن على الشقاء بفروض وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن بي نفع ما غني وقادني إليه بتحلي من بعد ما عزب بتقلي وجرني في العلوم والفوز بالعمل بالمهلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قصدي أن تبعا على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمن ربي فسان دينا وسيلتي لمالك رفيع محمد خير الورى الشفيع وآلي وسبي نجومي الخاري نفوسي ورجيمي هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فخمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفودا مسلما إليك عمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لما جد شرواك فجدت لليوم بخير منني وخدتني إلى دفاع سنني jërëjëf eh, sëñ Mbàkke si njàng mu am solo moom te neex lool te wér lool tamit ñu ngi santaat bu baax a baax a baax kon xam naa rek moom la ñuy daal di def Euh, dugg si xuus si dëgg-dëgg maanaam biir émission bi euh, muy itam mu am sol solo woowu ma waxoon léegi muy jub ak jub si yoonu murit kon xam naa dañuy ñëw si sëñ Moustapha sëñ Moustapha ku ne xam na ni euh, suñ nee jub ak njub maanaam lamboo na maanaam ay ay ay xeetu pàcc yu bari bari si biir xam naa loolu tamit benn question lay doon après yeneen question yi lay doon waaye suñ buggoon a xam tey jii maanaam lan mooy jub ak njub si yoonu murit loolu nan nga nu ko mënee maanaam expliquer ba mu leer si mbokkit mbokki téléspectateurs yi. Mm-hmm. jërëjëf Seydina Mohamed muy sant itam sëñ Mbàkke baax ci xasida yi xasida googu mu tijjee nga xam ne mooy dustuur yoonu marit waaw ah, bu nu waxee jub nag mën naa wax ni <coughs> aw melo la su ko nit ki melowoo nag lañuy ñuy doog wax njub waaye baat bi bu nee jub rek masdar gi loo am solo la. waaye balaa jëriñ nag day tàbbi ci jëmm su ko defee ñu ni moom ak njub a ngi ci moom wala moom ku jub la kon jub mën na noo jàpp rek ni suñ ko dee wax mooy nii yàlla tànne ni nga xam ne noonu la suñu borom tànn ni lii lañ war a defee ci wàllu jëf yi loolaa di ak lim tànn ci wàllu pas-pas lii la nit war a fas loolu mooy njub lim tànn itam ci wax ni lii la nit war a wax loolaa di ak njub liñ ci melow ni nii la nit war mel ba mu jeex yooyu nag dafa mel ne mën naa nekk ñaar benn bi mën nañ koo sabablu bu ci des dafa mel na koy may ku ko neex bi ni sabablu nag moo tax mu yónni yonente yi ngir jàng ñuy jàngal doomu aadama yi ngir di leen gindi ci njub googu bu ne ak njub léeg ñu tuddee ko siraatal mustaqim léeg ñu tuddee ko istiqaamatu te mooy aadamu tafrit wala ifraat mooy diggu doomu ci li la yàlla sant doo ci wàññi lu ci bokk doo ci yokk lu ci bokk lu ci bokk dafa mel nag alxuraan ci la tàmbulee soo xoolee fatihatu kitaab eh, binni moo ibbi téere bi di ndey téere bi itam mm-hmm. ginnaaw bi sunu boroom mel ne ku aajar boppam mooy wax ni mooy sunu boroom mi nga xam ni eh, moo bind mbindeef yi mm-hmm. mooy boroom mbindeef yi mooy buurub bis pénc mooy borom yërmande ju yaatu ji di borom yërmande ji nga xam ne yërmande ju sew la mooy ku ko neex la ciy dugal ba mu waxee nag ba mu noppee ci loolu dafa mel ne dafa àbbu ñu mi dee fii nii sunu borom moom moom rek la ñuy jaamu wala moom rek la ñu war a jaamu moom rek wala la ñu war a dimbali ko lañ njëkk ñaan ci faatiha mooy ak njub ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim dafa mel ne kon faatiha soo xoolee ba mu jeex genn ñaan moo ci nekk mooy ak njub alif lam mim zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin kon ak njub a ngi noonu lu yàlla euh, xottil boppam la léegi nag kon su nit ki li tax mu mën a jub mooy kon aw melo lay doon ay jikko lay doon yoo xam si ku ko melowoo jikkowoo ko daan mën a wax ni kooku jub na sunu borom mën na koo bindee bindee nit nag innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha wax na yonent bi ni ko maanaam yow wootee la yar wootee la war euh, woote googu muy woote ci njub la bokk moo tax mu ne ko wa innaka la tahdi ila siraatul mustaqim mooy yow jubalal ci yoonu yàlla wi rek mooy waxal nit ñi nii nii la ko yàlla bëgg waaye xol bi nag moom am nangu mën a topp loola moom loola moom du sa du sa kattan waaye man sunu borom maa koy eh, defal ku ma neex waaye gën nañ koo yaakaaree ci koo xam ne daal eh, xam na ni ak jub war na ba mel ne day jéem a jikkoo jikko yi ak jub maanaam di jéem mm-hmm. ndax suñu borom àddina bi noppi na ci lépp waaye dañoo sant sabab mm-hmm. eh, tey kon ki bëgg jub du toog nii damay toog rek ba yàlla dindi ma ci bàkkaar yi ma nekk waaye man mënumaa dindi bàkkaar yi sama bopp léegi nga gis nit wax ko wallaay sàggan nekk lu jafe lu lu wuute ak jub ba noppi ni mm-hmm. Eh, damay jub rek xataa eh, hadaani saaxibul xufraani fa inna daa alaamatul xislaani kon nit ki su nekkee ci naka sudul noonu am na loo xam si ci kàttanu suñu borom la am na loo xam ci ay loxoom la ni nekk ay loxoom mooy xam na ni lii baaxul na ko jéem a bàyyi mm-hmm, mm-hmm. bu ko jéemee bàyyi ba ba mm-hmm. léegi nag ñu ginnaaw bu ne la bàyyi lii nañ la jàppal lii mu seet nag la gën mu koy def loolu nag bàyyi nañ ko doomu aadama muy jihaad gi mu war a jihaad ak bakkanam ngir mel ni yàlla bëgg mu mel képp ku bàyyi bakkan bi nag jihaatoog moom mm-hmm. wala nga ne ni nga déggee ni yëf yi yëpp suñu borom noppi na ci doo sonn ngir jub bu la yàlla jubalee baax na bu la jubalul baax na yaw moomu soo demee itam safaan ba du bett kenn mm-hmm. ndax dañuy xam ne lii tax a dem safaan ba lépp yaa ngi ci te jéemoo caa jub ni la ko yàlla misaalee ci àddina nag mooy yaa ngi dund ci àddina waaye mm-hmm. kër gi eh, courant ngi fi am na loo xam ne boo ko laalee courant lakk la gaz a ngi fi am na noo koy jëfandikoo waaye am na loo xam ne boo ko jëfandikoo mu gaañ la tali bii oto yaa ngi fi doo dem ba ci autoroute à bi ni da ngay toog foofu di ataaya ndax bu yàlla dogalee ni doo dee moom mhm. doo dee maanaam soo fa demee rek kon yaa ngi dox jëm ci ak dee mooy sabab la yooyu nag lañ yàlla bàyyeel ngir ñu mën cee am ak njub kon jub daal mhm. suñ ko doon tënk mhm. dañuy wax ni mooy li yàlla tànn doomu aadama nekk ci mooy li yàlla tànnal doomu aadama ngir mu nekk ci képp ku ko wàcc rek eh, lamu jàkk jàkkaarlool mooy ak dëng mm-hmm. siraatal lazina an'amta alayhim ghayri maghdubi wala daalin mm-hmm. mooy way bi moom mm-hmm. moom murit bi moom lan moo ko war war si si si si jub googu waaw uh-huh. ak murit eh, moom itam lislaam a ko yanu kon daanaka kon mën nañ ñi ak njub moo yanu ak murit daanaka sax eh, Euh, teg nañ ko jullit ñëpp muy jub teg nañ ko jullit ñëpp waaye murit bi nag moom da cee war a raw mm-hmm. mooy jub gi dafa war a àgg ci mm-hmm. fii ci ñëpp di yem moom mu gis ni moom da koy da koy weesu mm-hmm. ndax euh, sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu bi mu ñëwee yonent bi da ko wooteloo ci itte yi kawe yi rabbi asaabaka bil himma léegi nag kin war a yar ci himma fi nit ñi daan daan yem nga xam ni loolu ku fa yem mën nañoo wax ni góorgóorlu ne te sëñ mooy li sëñ bi waxoon ne awalu waajibin awalu waajibin alal muridi mhm. taxzilu zaadihi a at-tawxiid yi ab murid dafa war a am tawxiid ba noppi mhm. su ko defee loolu moo war a jiitu ci nit ki mhm. ndax foofu la yam eh, ginnaaw ba mu ni muntahijan mazhaba ahli sunna ma al jamaati wa tilkal junna izulumaatu bidaati ixtiqaadu takku fu anwaari tibaal aadi moom murit bi itam su noppee na jàng sariya te bu ko dee jàng itam na ko jàng ni ko ahlu sunna wal jamaa dëppoo mhm. ndax foofu la yem déedéet maanaam murit bi lay waxal de waaye am na foo xam si tey boo xoolee da nga naan lii léegi sant nañ ko jullit ñëpp waaye dana am foo xam si nag moom mhm. tànn sa bu la neex la sant ñu ko jullit ñëpp waaye ku ko ci def nag moo gënal suñu borom mooy tatawa waaye lii ñuy wax nii nag moom mhm. ñoom waree kon ab murid dafa mel ni ñëpp dafa war a mel ni ñëpp mel ba noppi. Mhm. melaat nu nit ñi melul. dafa war a mel ni ñëpp mel ba noppi ba noppi. Mhm. ba nat ko ci àndaare yi lislaam mu doon jullit bu baax. Mhm. doo ko defaat leneen loo xam ne moroomi jullitam yi dañ koy yii mu naan man murid murid bi jaaxal na ma moom daal sawaay kenn mënu koo dab ci jëf. kon loolu daal la ñuy wax murid parfait daal. waaw kay kon gépp jullit bépp murid boo xam si ak njullitam dafa des murid ga matut jullit gi moo war a yannu murit gi mm-hmm. kon bu bu ca manqué ay birig birig wala mu manqué ay poto murit murit gi lu diis la bu tegoo ci kaw lislaam lislaam ko woyof lislaam murit gi de lislaam ji day daanu daanee laale murit gi moo tax sëñ bi nag ni bu noppee ca loola mm-hmm. wa baadahu taxsilu maa yu saxihu bihi furud al ayni fi ma sharahu ka wa siyaami wa salaati mm-hmm. wa xajji baytillahi wa zakaati mu góorgóorlu nag ci faraaidul ayneem ginnaaw bi mu amee tawxid ba noppi te tawxid ga itam mu natt ko ci ahlu na ndax xam nga am na pas-pas yoo xam ne baaxul ci suñu borom mhm. muy yeneen pas-pas yoo xam ne ahlu sunna da koo jam mhm. di jàpp ni daal doomu aadama bu jëfee yàlla eh, yàlla yàlla maanaam du ci am bàkkaar ndax yàllaa ko jëflu lu xew yàllaa ko def moo tax ñooñu moom sëyeeg soxna soo takkul ak naan sàngara yooyu yëpp dañoo jàpp ne loolu amul bàkkaar mhm. ba pas-pas ndax dañoo dindi sabab ñoom te ñoom ñoo ñu di ko wax noonu euh, buñ toogee ba lekk jot duñu wax ni ku yàlla dogal nga suur nga suur dañuy dem lekk ji suñ tilimee dañuy sangu suñ maree naan ba noppi nag di gëm ni kon mm-hmm. loola yëpp yiw amu ci wala ab yool amu ci mbugal amu ci ndax yàllaa ko dogal boobu nag dañ koy tere moo tax bi siñ bi wax ci pas-pas mm-hmm. mu wax ni mm-hmm. mun tahijan mazhaba ahli sunna maal jamaati wa tilkal junna kon bu murid bi noppee ci loolu ba xam lu muy yéwénalee ak ay julleem ay kooram ay nattukaat azakaam ndax sunu borom mbooleem lim digle lépp mu nekk furudul faraidul eh, ayni mm-hmm. da cee santaat ci ginnaaw bi li ñu tuddee tatawaa juróomi ponk lislaam yépp tey ko xas wax ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah benn yoon mm-hmm. su ko neexoon mën naa ba ñu tuddati yàlla mm-hmm. du tey jullit la waaye nag lu gën a bari gën a baax léegi nag gën a bari gën a baax gi moom tatawaan la bu njëkk bi ne moom par la moom mm-hmm. waaye bu ci des tatawaan la kon benn ponk lislaam yi noonu bi ci des mooy mm-hmm. julli juróom rek lañ ci teg nit ki ci bis bi muy suba ñaar mm-hmm. tisbaar takkusaan bu ne ñeent timis ñett gee ñeent su ko neexee mu yam foofu dong du julliwaat beneen julli amul beneen julli bu muy defaat moom jullit bi moom jullit bi te du tee baax na du tee baax na waaye nag su ko neexee mu def tatawaan tatawaan mooy lan di julli ñaar rakkaay fajar mm-hmm. di julli ñeenti rakkaay yoor yoor di julli ñaar rakkaay njëkk njëkk njëkk tisbaar wala ak ginnaaw tisbaar ak ñeenti rakkaay lu jiitu tàkkusaan ndax ginnaaw tàkkusaan mu tere nañu naafi la mm-hmm. ak safaak witar wala guddi gi muy faral di julli wala léeg-léeg mu toog ba yàgg rek mu jàpp julli suñu borom mooy naafi naafi la mooy naafi la lépp day dugg ci e, e, zikru gi waaw day ah. dugg ci zikru gi mm-hmm. léegi nag kon boo xoolee ponk yi bu suñu borom tegee benn ni ñëpp la day am léegi nag foofu la murit wuutee ñi ci des ndax ki nga xam si moq tasit la mhm. moom day yem ci loolu rek du ci dolli dara yoo xam ne waaye nekk fii di naafi la sawaay nangam fekk moom da ko dul xam mhm. sooy koor mu ne yaa ah, man de ko mu jeex kon kooku yiw yu koy romb yoo xam ni mhm. yiw yooyu nag murit bi moom day def li ngay def ba noppi mooy soo wooree dana woor weeru koor jullee ndegu yow ba noppi ba nga ba nga ba nga nekk sa bopp nag moom mu delluwaat ci yàlla yor kurusam di def ay lim ci zikrullahi julliwaat ay raka mu nekk tatawaan wooraat loo xam si kenn sant ko mu woo ko lu mel ne nisfu saabaan maanaam du force ci moom nisfu mhm. saabaan mhm. wala kazu rajab wala këhu si la qaada wala yu mel noonu ngir ngir sàkkoo ko aw yiw mhm. azaka lañ sant nit ki bu amee alal mu mat nisaab mu joxe ndax ci ponk la bokk nga gis koo xam si moom azaka daal dina ko joxe bu ci noppee noppi na amul addiyo ju may joxe kenn du ma ah. barkeelu ci benn liggéey man fii laa yem kooku ba murit bi nag moom day weesu loolu. ah war a weesu de. waaw ni mu koy weesoo mooy. Mhm. ginnaaw sama joxe azaka yooyu moom léeg-léeg am sax lu mat azaka dama ciy joxe addiye léegi dama ciy joxe ci jumaa ju nii defar dama ciy joxe ci daare alxuraan dama ciy barkeelu ci ab daayira ñu koy jox kilifa ak lislaam gi fi nekk mhm. ngir mu man di faj néew ju doole mhm. man di leen dimbali ci xari tabaski man di def ay infrastructure yoo xam ne day delluwaat ci lislaam moom day participer ci loolu kon soo xoolee yow fi jullit bi di am azaka da koy joxe ni nga ko joxe di defaat leneen loo defut bu dee ci aj màkka benn lañ la ci teg muy liman istataa ilay sabilan waaye ba tey am na tatawaa te mooy umra kon boole kii ba mu jeex yooyu nag la murit bi moom di ngëpp maanaam nag dolli kooku moom moo tax sëñ bi nag ni wa baadu ko eh, in raamal wusul ala yaday mu kammili yax fu rasul ginaaw ba tawxid di jiitoo fiq bi topp ci léegi nag mu doog a ba nga xam si mat na boo ko xool da nga naan bu yemoon fii moom dem àjjana ndax am na ku mas a ñëw ci yonente sallallahu alayhi wasallam dugg ci lislaam yonente bi ni ko ni yonente bi wax ma lu ma sama diine teg mm-hmm. yonente bi ni ko diine teg na la ginnaaw ñaari baati seede yi nga tudd teg na la julli mu ko julli ñaata lay doon mu ko juróomi julli mu ni ko ndax ginnaaw bi suñu borom tegaat na ma beneen yonente bi ni ko déedéet xanaa bu la neexee nga coobarewu mu ni ko ak lan yonente bi ni ko weeru koor mu ni ko nu muy demee yonente bi ni ko at baat lay doon wenn weer la nga woor ko ba jeex bu fajar gi xaree nga bàyyi lekk ak naan ak booloog lépp bu euh, timis gi duggee nga dog mu ne ko ñaata weer lay doon mu ne ko benn weer rek la ci fanweeri fan mu ne ko ndax am na geneen koor gu nu ma teg gu bëgg teg boobu yonente bi ni ko déedéet xanaa nga coobareew mu ne ko ak lan ba ba juróomi ponk yi mat mu ni mu ni bi incha allahu li ma yàlla teg képp ci laay yam mooy du ma ci dolli maanaam jaayante wu ma moom daal fa man tatawaa xeeran fa xeeran lahu man nag man tatawoowu ma waaye li ma digal moom def naa ko strict ci yonente bi naa ni daani maa ngi giñ bi bi ummihi wa abihi maanaam waxeenu arab la maanaam ci ci ci ci ndayam ak baayam lay su waxee su defee lii mu wax rek yam ci du tee mu mucc ñooñu lañuy tuddee muqtasid suma awrasna alkitaaba lazina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bil xayraat bi iznillah saabiqun bi eh, bil xayraat mooy ab murit mooy li ñii di def lépp da koy def dolliwaat ci leneen saa boo xoolee nag kon ab murit su ko nit ñi yéemuwul ci ni eh, classe bi mu nekk ñëpp yéemu ko ci ni mu oyefe maanaam boole makaarim axlaax yi ñu wax ni kenn mënu ko fee gën a baax kenn mënu koo gën a jàmbaare kenn mënu koo gën a joxe alalam kenn mhm. gënu ko maanaam faaw ñu wax ni baax am na waaye mu moo fi gën a ñeme joxe alalam moo fi gën a ñeme kurus moo fi gën a ñeme xasida kii li muy durus moo fi gën a ñeme tur yàlla moo fi gën a nangoo liggéey moo fi gën a moo fi gën a kooku gis nga ñi ñi melowoo melow murit moom ba ci biti réew sax bu ñu demee dangay gis ne loolu ràññiku na ci lool melow woowu nag mooy jawharul islaam boo xam ne suñu borom dafa wax ne yéen ñëpp yéen a ngi yéen yéen yéen ñëpp digal naa leen ngeen mel nii mhm. ba nit ñi toog mu yor leneen loo xam ne ay ku ci mënoon a fexe ba jot lii ma yor ay ko ci mënoon fexe ba jot ko baax na de ñooñu sëgg ci ndab loolu rek fekk lam leen di wax nii moo gën li ci ndab li waaye loola nag coobare sa coobare bopp la du la ci forcer dara fi mu toll ku mu neex nga ni du ma murit loolu du bàkkaar mhm. ab jullit la waaye du ma murit ab jullit la waaye du ma tijaan ab jullit waaye du ma xaadir ab jullit waaye du ma laayeen mhm. ki génne ko ab ab jullit waaye du ma motasawif loolu nit ki am na ci droit kenn war ko cee xeeb muqtasid la suma arasnal kitaaba lazina stafayna min ibaadinaa fa minhum na yàlla gëm gu wér waaye nag eh, kattanam kattanu xolam àggul ci di jaayante jur doom di ko joxe ca daara ja wala eh, gis nitu yàlla mu sukkal ko wala mu jox ko teraanga wala wuyoo aw sant wala yooyu dafa jàpp ne moom mm. yooyu du ko def waaw dafa jàpp ne waru koo def mm. moom ci biir ak njub waxuñu moom mu mel ni ci ñëpp mel rek waaye da cee war a raw makaarimal axlaax ndax jikko rek lañ wax wax nañ fii léegi nii jub jikko la waaye fam yam nga xam ne mooy mooy njobaxtali jikko ya mm-hmm. foofu la ñuy séenu ab murit àgg fa te foofu bu fa nit ki xasee ba àgg mm-hmm. xijaab yi nga xam ne moom la doomu aadama am dootu ko amati suñ tubaab mi nga xam ne moo ñëwoon di jàngale woowu yoon sëñ bi dem ne ba nga xam si daanaka xijaab yi tënkatu ko mm-hmm. mooy nit mënatu koo bégloo mu merloo Eh, ci wàllu makaarima axlaax itam wàllu tiit ak ragal moom yooyu du du du du ko defati mën naa cee nettali rek ay xisa waaye damay bañ. xam naa xam naa suñu fa mm-hmm. xam naa foofu ginnaaw maanaam. Mm-hmm. Eh, thème bi mm-hmm. eh, dañ ni jub ak njub te maanaam jub ak njub maanaam am na ay pàcc yu ndaw yoo xam ni bëri na si tey jii soo tuddee liggéey tudd tarbiya loolu lépp day duggaat si loolu te xam naa yaa ngi bëgg dugg sama question bi nga xam ne moom laa la bëgg a laaj léegi xam naa dañuy noonu nag lañuy daadi def daal di dem si sëñ Mbàkke incha allah mu daal di bëggalaat mbokki téléspectateurs yi si xasida yi incha allah kon sëñ Mbàkke euh, xanaa nga bëggalaat gaa yi rek incha allah bisimilah من بعد ما كاد امتداه الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمضاء والإطراء أسقط في الطالف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي الشعال بالعود المعلوم فقلت ذا شك وذا توسل بالمصطفى شفي عين رسلي وبي بني وبناتي معا ليشفعوا في سريا أجمعا يا بر يا غفور يا عليم إني عمر طائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول يا مالكي يا خالق الأنام أمت حوايا حلل المنام yaa xaaliqi yaa kaamila sifaati laka shtakaytu kasrata al aafaati wa anta zul jalaali wal ikraami fa najjini wa awlini maraami minka aruumul yawma an akuuna mimman abaw li xarika rukuuna وأن أتيئك بنهج المصطفى سنتي البيضاء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاهنا قريب لأبزاك ولإقوان جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا دعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير الختم في المقاسم ولزوي الدين بجاي الخاسم ولكشف الليل الهوى البهيما بخرمة المحبوب إبراهيم وليسحر العلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني وصفني في باتن وظائري وارحم بي الحق بحق طائري ورقني ترقية حفية ببيته رقية سفية وقي أضايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى الخيامة وليجد ربي بحسن الحاتمة غنى وفي قد بجاي فاتمة صل عليه صل على أبي وم والآله وصحبي وليستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي خد من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاه والتقي جسماني في خبر البلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاي من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار jërëjëf sëñ Mbacke si njàng mu am solo woowu eh, te neex lool dëgg yàlla xanaa di ñaan rek eh, sunu sëriñ bi nga xam ni moo tax nga koy jàng eh, yal na nga si am ngërëmam barke borom Tuubaa te baat bi gën a jàppandi lool macha allah santaan nañ bu baax a baax a baax kon xam naa ni noonu rek lañuy ñuy daal di def daal di dugg dugg sunu beneen xaaju émission bi kon suñu suba xam naa dañuy ñëwaat si laaj wii rek mooy. pàcc pàcc yi nga xam ni waxoon nañ ko si euh, thème bi muy bu njëkk mooy liggéey amal beneen bi di tarbiya ak yërmande euh, loolu lépp nag euh, lan la ñett yooyu noonu lan moo ko murid bi lan moo ko ci war daal waaw soo ko soo soo ñu ko doon soo ñu ko doon énumérer waaw jërëjëf wax nga yu am solo ba ma ci ñëw ma jaajëfalaatal bu baax a baax a baax sëñ Mbàkke bu baax te daanaka xasidi gi daanaka man man naa woo mat jotaay bi ndax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu da ci wax engagement bi nga xam ne mhm. engagé wu na ko ci yu mel ni ñuy wax Matlabul Fawzayni Matlabul Fawzayni bi muy tàmbali rek mhm. ak ci biir lim ci xuus bil fawzi wal fawzi bil amali bil maalumi mhm. eh, wax na soobu gim soobu ci wàllu xam-xam wàllu jàngale ak wàllu liggéey tuddaale na ko ci kon wax nga léegi liggéey ak yërmande ak tarbiya waaye kon damay njëkke tarbiya doomu aadama faaw mu tarbiyewu doog a jariñ day mel ne lépp lu nit ki bëgg a doon ab sëriñam da doon ab taalibeem kon war na ci doomu aadama bi war na ci murit bi mu njëkk a tarbiyewu bépp murit boo xam si kenn tarbiyewu ko amaana lu mu jàpp ni lii ak murit la ndekete loolu ak ak ak ak ñàkk taalibe la ci biir tarbiya nag ci ngay mën a xamee leen moo tax suñ tubaa wax ne fa wajaba taatu ma yax fu rasul salla alayhi man bihi yax bu bisul mm-hmm. min roasa id diini sil kamaali man laa yura minhu si wal jamaali dafa mel ne dani fa wajabat war na mooy waajib la ko def nga topp ko xenc yonent bi ndax dafa mel ne wax nañ ni suubul sa yoonu bopp ta eh, eh, tasawuf mm-hmm. nga suubul sa yoonu bopp te àndoo kenn mm-hmm. sëñ bi wax na ni Eh, ku ko def da nga yàqule. loolu de daanaka doo gaaw a àgg suñu borom sax. déedéet ah, loolu moo tax bi mu waxee ni. Mm-hmm. Eh, wa baaduhu yasluku in raamal rasul ala yaday mukamini yaqfu rasul. Mm-hmm. yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi tarbiyaa ngi noonu bi tarkil aada su boobaa day sóobu nag ci loxoy koo xam ni ku mat la yaday mukammilin yaqfu rasul te ku koo xam ne day xenc yonent bi ndax. fi mu toll loo bëgg a bëgg dem ci yàlla dem ci sëriñ boo xam ne euh, dalay tarbiya waaye li muy def dafa wuutale ak njàngalem yonent bi tax na la naan sàngara wala mu tox loolu cigarette ba mu mooy loola du ngeen dem. kay dalay loo du ngeen du ngeen dem. mooy kon sëñ bi day wax ne fa wajaba taatu ma yàq fa rasul bi ma waxaate fii wa baxdu yaslumu yasluku in raamal wasul ala yaday mukammilin yàq fa rasul mooy kuy xeeñ ci yonent bi ndax yonent bi nag mooy nattukaay bi nga xam si lépp lu wuuteeg moom baaxul fi mu lépp lu waay jàppe lu baax te loola jubuwul yonente bi loola baaxul kenn tere naa def lu baax lu kii kon nag tarbiya yow mënut a ñàkk tarbiya nag mooy lan doomu aadama dafa ñëw ci àddina ànd ak ay sikk yàllaa ko bindee noonu wa nafsa wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha léegi nag ndax dafa war a bàyyi noonu rek kon ginnaaw yàlla du ko bindaaleeg tedd nga muy taqwaa gi bindaale ko fujur gi te sax bu neexoon suñu borom ni fa alhamaha taqwaha wa fujuraha waaye fujuraha gi la njëkke mooy dafa mel ne kon nit ki ci ñàkk xam lay njëkk a topp bànneex la nit ki njëkk a xamle jafe na mhm. nit gane àddina rek dëgmal wan ginnaaw bànneex ak yooyu yëpp daanaka day njëkk jaar ci bànneex ba naan ko nangam kenn du ko def mhm. lu lu lu lu mu bëgg rek la xam waaye nis tuut nag dañuy tàmbali loolu mooy tax nit ñi di sànni bët ci moom ngir war koo yar lii kenn du ko waxee nii kenn ko toogee lii kenn du ko def kooku su la ci nit ñi eh, yaree ba nga màgg société bi dinañ la mën a jëriñoo nga doon jullit bi gën waaye am na lu la dese bu dee dangaa ngaa demaat ci sa borom ndax yaa ngi woon ci mbooloom jullit ñëpp li ñëpp di def yaa ngi koy def par force la munoo bañ a julli munoo bañ a woor munoo bañ a nat azaka nangam waaye léegi des na leneen nag da ngaa bëgg a rafleel àddina doonaat keneen koo xam ni la mu bëgg dafa rëy mooy dafa bëgg a dem ci suñu borom mm-hmm. kooku dafa am beneen xeetu tarbiya nag boo xam si bokkut ak gii say wéyjur ak yooyu di la yar kii nag dangay ngay soxla woo weneen wéyjur woo xam ne da ngay dellusiwaat ci moom mel ne xale su la yónnee nga dem su la joxee ab lim nga def ko su la laajee nga joxe mu lay waat ci woowa yoon comme ni ki nga xamee ni tey professeur bi noonu lay jàngalee eh, élève bi di ko wax ni ko nii nii lay demee mu koy topp toog tamit waaw mhm. loolu àddina ñàkk ko waaye bu kenn jàpp ni ku bëgg doon eh, ab médecin faw nga tarbiyew mhm. ku bëgg a doon ingénieur faaw nga tarbiya waaye ku bëgg a dem ci yàlla moom da ngay da ngay jaar fu la neex loolu amul yàlla bindewul noonu àddina mhm. du jékki-jékki da ngay ñëw naan ko yàlla maa ngi nii dafa am foo xam ne foofu rek nga mën a jaar mhm. foofa nag yonent yi bi ñu ñëwee ñoo xotti woon woowa yoon mhm. bàyyi ko fi bi saa su ne nag moom suñu borom li mu mooy ñun mënuñoo fàggu ñun fay nekkal waaye loolu moom ne na seen xel daal ni ma fexe ba banaana jën sunu maam yaa ko doon lekk ba léegi te du manqué oxygène bi ñëpp a ngi nooyi du manqué noonu itam ñu war a yare duñ manqué mm-hmm. saa su ne sunu borom def ko fi waaye yow mi bëgg a dem ci yàlla nag yow murit bi faaw nga seet ci ñooñu sëriñ bu doy nga ñëw ànd moom ci loolu kon tarbiya gi mooy jiitu bu jàllee mm-hmm. bokk na ci lii tax nit ki moom boppam mooy mu liggéey ndax al amal mm-hmm. euh, mooy dañ ko tuddee amal di ko tuddee xitma ci ñun murid yi ndax bu dee amatu naas ñoom mën nañu amal ndax amal ni ko nit ñi gën a miine mooy dangay ngay jëf di fayiku mm-hmm. waaye boobu mooy yanu xitma al amal wala xitma mën nañ ko ndax mën nañoo duggante mais bu dee concept bi nga xam ne murid moom moom lay gisee liggéey mm-hmm. boobu mën naa dugg ci xitma waaye mën nañoo ñëw ci amal mm-hmm. ndax mooy tax nit ki mën a def xitma ndax boo liggéeyee ba am alal léegi ñoom ñaar da nga leen rek. waaw ma boole leen nga xam ne ki nga xam ne mi ngi koy déglu. waaw dina mën a xam la nga si jublu incha allah. <laughs> waaw ki koy def. Mhm. day séenu ñu fay ko. mooy tey jii eh, kii liggéey ci boulangerie bi. Mhm. li def def amal la bu wàccee ñu jox ko ration fay ko kii dawal oto kii def lii kii def lii. Mhm. fi mu wutee xidma nag xidma ki koy def moom da koy def te yàlla tax lañuy gis koo xam ni. tooli xel ko mii lay jékki-jékki jugee Ndakaaru jël ab biis fay. te mu ngi woon ci néegam néegam am na kilim saala a ngi nii ordinateur ma ngi nii ay patam mu ngi nii mm-hmm. mu bàyyi fa mu mu jël iPad bi téléphone bi dugal ci ab saak jël ay kawas dem fanaan ci ab sedd nekk ci ab xatax di mm-hmm. di di di def physique di dagg dugub ji di ko kii kooka te bu noppee gisul ki ko sant gisul uh, ki santaane dugub ji kenn fayu ko dara mooy paas xaalisam moo def léppam mm-hmm. ñëw daj coono bi waaye yàlla la koy defal loolu mooy xidma nga xam ne ñaari xeetu jaamu yàlla yi ñoo am mooy bi ñuy tuddee ibadatu ak bi ñuy mm-hmm. tuddee xidmatu mm-hmm. bi ñuy tuddee ibadatu du wàlle mooy nit ki mënul taxaw fii di julli rek ñun ko sa soxna julli waale na wala sa yaay julli waale na jarul muy julli déedéet mm-hmm. loolu kenn mënu ko defal kenn waaye xidma moom dafa yaatu mooy loo xam ne su ko nit ki defee ñu mën koo jëfandiku ñu ngi tey université bi xidma la am na ñu fa ñu ngi fay ñu ngi fay formé ñoo xam si ci turu lislaam bu nu génnee doon ay ingénieur doon ay docteur waaye ña def ijtihaad ba taxawal ko fa loola xidma la mhm. jumaay Tuubaa ji xidma la ak yeneen ak yeneen lii tubaa ji kanam di def ak yooyu yëpp xidma la kon nag xidmaa ngi noonu ñun ci lañu war a gën a focaliser wu sax waaye génne na ci nag am na xam nga méthode tey nit nga xam ne day kar nit ñi xëy na ni leen dañoo yëkkati nangam def leen ci nit ñi def ci ba tey loolu baax na ma jaal baax na lool <coughs> daa taxawal lislaam salawaatullaahi wa salaamu alayhi daana def li ñuy wax majaal mhm. majaal xëy na léegi ki naan majaal waaye mooy majaal majaal mooy mhm. wëndeelu neex ma rijaalu lahum majaalu baat baa ngi noonu yonente bi daana dëgmal xare ni saxaaba yi lu waaye am na ko indi saxaaba yi kenn ku nekk indi li nga am ñu dajale mhm. comme murid yi ñi def nii loolu la saxaaba yi doon def su ko defee itam bu nu joxee Eh, ku mel ne Abdourahman ibnu Awf nga xam doon liggéey ku mel ne Ousmane ibnu Affan ci liggéey baa taxoon ñu man a def ko xidma gis nga itam Cheikh Ahmadou Mountakha bu yàggatoo taliatul muridiya ñëw cent cinquante millions jox ko. loolu day jëm si seen eh, kuréel gi di Touba sa kanam rek. waaw ah, Touba xidma la mooy boo liggéeyee nag ba am lu lew ba mu nekk sa poos su la neexee nga lekk ko yow dong yàgg sa njaboot kenn du la yedd boo neexee nit ñi la ñëw ni la may ma ci nangam nga ne ko ah wax dëgg yàlla mënuma laa may du tax nga am bàkkaar waaw boo ko defee am yiw mais boo ko deful du bàkkaar kon léegi nag liggéey ci yoonu murit mënta ñàkk Sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu bi mu nekkee njaareem mm-hmm. formé woon na njaboot gi ci liggéey mm-hmm. soxna yi mm-hmm. boole leen ak seex soo xam ni liñ soxla woo ci ay xeetu sor ak xeetu caq peme yi ni rab wala yooyu dañ leen ko daan jëndil di indil ñoom ñu koy retaaye di ko def ci seen loxol bopp noonu itam la daan jël ku jëblu ci moom mu laaj ko mu doon ko xarañ ci bant mu boole kook ñoo xam ni bant du woon seen mbir ndax xëy na yaakaar ni yi ñoo ko moom sëñ bi boole nag ñoom ñu koy liggéeyal yenn xeetu kurus yi yenn xeetu euh, wëlis yi kees yi di ko liggéeyal ba xarañ ci lool ba léegi boo demee kees yi sëñ bi da gis motif xeetu dessin yi ñu ko dessin ba léegi motif yu rafet yooyu euh, bu dee wàllu téere yi am na ñoo xam ne day na ñu ñu ñu mën a dessin la ñu woon ñoo daan dessin feggu yi mhm. dessin yoo xam si moom mbind mi day day day nekk ci biir bu noppee am ñeneen ñoo xam ne ñooy liggéey jaafire yi am nga ne ñoom tamit ñoo daan awaale téere yi mhm. loolu lépp formé woon na leen ci ba nga xam ne ba léegi ci biir murit gi mhm. seeni sa a ngi wéy di def loola mooy barke baa nga ci ba nga xam ne am na ñoo xam ne wàllu téere jaan yi ci sëñ bi lañ ko jëlee te moo ko defaloon seen maam am ñoo xam ne wàllu jaafire yi maxtume yi ñoo koy am ñoo xam ne wàllu bind am ñoo xam ne wàllu móol loolu lépp moom moo ko doon ci xekkam bi ko yàlla defal boole ci waat itam li nga xam si saabu bu àdduna wër wëree wër wër ci la delluwaat ci wàllu liggéey maa ngi ci liggéey ba tey mooy benn dëkkub si buñ sanc ngir turu Sëriñ Tuubaa nga dem te liggéey amu fa amul foofu dem jàjju ba jàng julli bay ñoom bay moo doon seen liggéey nga xam ne ni ko Sëriñ Mbàkke bu soo waxee ni amuñu yitte lu dul seeni bayukaay wala seeni róom yi ma jàkka maanaam seen seen seen seen sijaada ak seeni waqafi alquran maanaam noonu la ñu meloon ñoom ñooñu mooy dañ daan jaamu yàlla di jàng di liggéey loolu moo tax yoonu murit autonomie mi ko ci kenn liggéey bee tax boo xoolee tax lu bari bu ko bëggee man ko defal boppam mooy liggéey bee tax tey boo demoon Sandaga gis Touba nangam Touba nangam mm. gis Lamfal nangam Lamfal nangam Lamfal broderie Lamfal tissu Daaru Xudduus euh, aluminium nangam ki nga xam ne ñoom ko ci gis ci ñoom dafa fonk lu ñuy tuddee métier waaye ñaq gi mu ci ñaq itam ngir wërsëg di ci tuuroo wërsëg woowu da koy jëlewaat di ko sàkkuwaat boroomam ndax dafa waxoon ne yàlla la bëgg moo tax muy joxe loo xam si bëgg na ko léegi saa suñu dëgmalee lu mel ne màggal Touba nga gis lu mu dafa teggi nattu 500000 wala 1 million. Mm-hmm. soxla na ko lool. néegam bii mu dëkk am na lu ci man a def. otom bee gaari am na lu ci mën a def waaye mu jël ko moom def ko ci itaam taam ndax lan moo euh, lan moo tax mu def ko. Mm-hmm. dafa xam li euh, yàlla dafa bëgg. Mm-hmm. forcé wu ko nit ñi waaye bëgg na koy leele aw ñam mu leele aw ñam. léeg-léeg maanaam comme noonu rek la koy toppee mooy li rote ci ñaq joowam lépp mu koy dellowaat bi ci des mooy yërmande. taalibe yërmande alalam la te mooy buntu teggin waaye taalibe mooy teggin te buntu teggin suñ bi dafa wax ne tariqatul adabi rahmatu saxir mm-hmm. kal abbi wal ummi wa tawxiiril kabir wa jaalu mislika ka nafsika sawa li waji xaaliqin ala al arshi istawa moom yërmande moom yërmande loo am solo la nag day tàmbalee ci wéyjur yi mm-hmm. tàmbalee ci jege ñaale yi ndax suñ Tuubaa dafa wax ne adaba summa adaba wa huwa an tabarra umman wa aba wal amma wal ammata wal aqal kabir wa sayqa inna sayqa bil birri jadir mhm. moo tax àddinaa ngi àtte am na ñoo xam ne bi seen doom duggee ci yoonu murit ñu ci bari dama yaakaar woon sax xëy na day sànku waaye bi jamono demaatee tuuti boo laajee way jur yi tey jii lii ku mu neex la mën ngaa def constat bi xoolal murit bu wér a wér soo demee maanaam yaay ji bu doon am na ay doom doom ji ci doon murit moo ci ëpp ngërëm moo ci ëpp ngërëmam mhm. du ci moroomu kenn ko yàlla bind soo laajee seeni soxna daan la wax ne la noo man ci seeni kër soo laajee seeni doom daan la wax ne duñ saaga ndey te duñ dóor maanaam mel kon sondage bi boo ko dina yomb xam mooy koo xam si dafa génn ci ab famille dem dem doonu ji murit mu riggee dëgg ci moom balaa yàgg wa yoo jubul mat xala dal jiraani dañu mujj wax ne ah ñun de léegi dañ koo rus ñëpp di wax ne ah mu ngi nii de waaye moo gën kon mu ngi noonu yërmande ji say baay tëx say mag say rak say bàjjan say nijaay ñoom ñëpp da koy tàmbale ci ñoom doog koo jëmale nag ci mboole mbindeef yi. Mhm. surtout murid gi tamit. Mhm. Ah, waaw surtout murid gi maanaam yërmande mhm. yërmande gi Sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu loolu moom dañ cee soñño soñño sonn ba kenn ku nekk dafa bëggoon mu def moroomam muy boppam moom njabootu boppam gi meloon nañu noonu. kenn ku nekk eh, di xool xam nga dafa wax ne war warxam warxam uqaya jamii al xalqi kullihimu wanzur alayhim bi ayni lutfi wa saqafa waqir kabiruhumu warham saxiirahumu waraaci fi kulli xalqin xaqa man xalaqa si mu nee yow sama mbokk yërëmal boole mbindeef yëpp te sàmmanteeg ñoom àq yàlla di la xool ñoom ñeewante ak cofeel fi mu toll ki nga xam si sax da koo gis mbokk taalibe may gis maanaam te defarewul ni mu war a defaroo maanaam yow bul ko weer wala bul ko boddi xamal ni bu neexoon suñu borom ci boobu euh, fii nafsin waaxida mu def la moom mu jub yow nga dëng yow mi jàpp ni danga nga koo war a àngale yooyu ak di ko tuutal maanaam ni nga mel la bëgg a mel moom waaye yàllaa ko defagul léegi kon da koy yéeram koo gis mu bon ni ko suñ bay jaxate waxe koo gis mu bon ne ko yàlla nañ yàlla boole jubal xamal nit ameewul boppam de kon mu jubal ñëpp jub lañ bëgg waaye kon nag di laabiire ak di yërëm comme ni Sëñ Saaliw radiyallaahu taala anhu di defoon nga xam ne Sëñ Tuubaa léppam ci lool la ko tabax kenn mës ta gis kun ni sëñ bi da ko da ko da koo dagg fii da koo dóor mu dagg wala dafa damm ab loxoom wala da koo yeewlu woon fa mu doon nekk saa su nekk dina jot loo xam ne ci tarxii sa tax nit def ko waaye daawul woon fayantoo ni mu meloon ci ab dogal mooy gisatul kiy jëf dogal bi waaye ka dogal dogal bi lay gis moo tax euh, Seex naa moo ko doon way wala doomu Cheikh Sidiya ci asayxu ahmadu nicmatun awlaha ca biir ma nga fa naan yarda isa jaratil umuru musalliman ilman bi anna ilahu ajraha ni yàlla ni suñ ni jaama ngi nii boo xam ne saabu yàlla saabu ab dogal xewee rek day sant yàlla ndax day xam ne dogal bii nii yàllaa ko def ku mel ne sëñ Saaliwu misaal la ci woon itam ci yërmande ba am na ci nit ñi ba moom fax fi tollu ak mujjam doonu woon rendi waaw benn bis nee laam koo xam si dafa wàcc te da koo joxe woon waa eh, taalibe ba góorgóorlu lool jàng alxuraan ci diir bu gàtt alxuraan ji rafet mu ñëw tali ko Sëñ Saaliw mu bég ci ba ni nañ ma indil foofu am xar mu indi xar mi tër ko mu rendi ko rek waaye bu ko rendee nag ba deret ji sànni rek mu ne ah dootu amate mukk de daal di sampaam ah dootu amate de waaw ci la mujjee moom du rey kon ma ju mel noonu mooy tax nit ñi ma nit ki nit ñi mën koo jariñoo mooy li ñuy tuddee a taraaxum mm-hmm. lu am solo nag lu nit ki war a ngànnaayoo yërëm sa yërëm say mbokk yërëm say mbokki taalibe surtout say mbokki taalibe yi nga xam ne dangaa bokk ak ñoom léeg-léeg dee nëbb seen i ayib euh, dafa suufe lool ñaari mbokki taalibe di déyante ci seen ayib yi moroomu mbokku taalibe su boobaa dafa mel ni am na leen luñ bëgg léegi nag lu bokkut ak suñu borom waaye dañoo war a nëbbalante ay ayib suñ Tuubaa doon wax naan euh, euh, ci wàllu xarit war a mel man yas'a ma'ak wa man yadru nafsuhu dafa la ko jiitu la la la la laa tënkatul waaye inna aqaaka al man yas'a ma'ak wa man yadru nafsuhu li yanfa'ak wa man ida raybu samaanu shaddaak shattata fiika samluhu li yajmaak xultu wa man yuqfil xanaa li yarfaak si bi nee ki ko doon wax ñett la wax waaye man naa ci dolli benn kon xam naa ne dañ ci dee si waat mi ngi ngi doog jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Euh, si si si leeral yu am solo yooyu euh, nga jëmale ko si euh, murit bi nan la war a ban taxawaay la am si liggéey ban taxawaay la am si tarbiya waaye ban taxawaaye la am si yërmande kon ñu ngi santaat bu baax a baax si leeral yu am solo yooyu kon xam naa noonee rek lañuy daal di def ndax day mel ni li ñu dese si waxtu day mel ni bëriwul kon xam naa mënuñoo tëj émission bi te maanaam joxuñ kàddu gi suñ mbàkke Euh, moom mi nga xam ne mi ngi si monde euh, dans le monde professionnel moom dina mën a gën a mën a gingi euh, mbokkaay yi nga xam ne ñooy seetaan suñu bàkkee maanaam tey jii li nga xam ne mooy l'éthique dans le mouridisme maanaam tey jii jub jub boobu soo soo si doon soññ mbokki taalibe yi hmm. maanaam loo daal ah bisimilah. waaw ah, sëñ Mouhamed maa ngi lay ziar bu baax tey sant itam ci li ma waxoon sànq muy dalal bi. ndax lii moom. dama naan yoon bi da koo soxla. da koy tëwa lool ci ndaw yi nga xam ne dañoo mel ni man. Mm-hmm. bëgg foo xam ne bëgg nañ faa jafandu. waaye amaana yu mel ni dina raaf. maa koy wax sànq di wax ni tey jii. Mm-hmm. Moussa Gueye mi daa doon daa bokk jëm yooyu nga xam ni. léeg-léeg amaana bëri nañu leen di bàyyi xel. jàmbaar la sax ñoom duñ ko bàyyi xel. maanaam ci euh, maanaam day jàngale jàngale moo xam ni. wér na jàngale moo xam ni. ji nga thème bi ñuy waxtaanee nii. wér na maanaam moom da si euh, moom rek soo ko jëloon rek. wér na euh, di gis ni maanaam mën nga kaa waxtaanee. wér na wér na parce que moom mi ngi si da nga koy gis si plateforme yi comme TikTok. wér na waaye gars yi dañ koy sopp lool. lan lañ ko soppee. mooy njàngale mu wér mi nga xam ne mi ngi koy mi ngi mi ngi koy jàngale. su ma jëloon eh, groupe yaatal xam-xam la tudd. waaw mu si jàngale lu wér. lu am solo maanaam si teggin. waaw kon li ñuy énuméré nii yëpp daanaka moom noonu lay doxalee. wér na na kon mi ngi mi ngi koog daal. kon kon daal xam naa ni eh, loolu nga ci wax du jaar sax ma ci dellusiwaat sëñ Mouhamed waaye euh, njub ki nga wax sànq moom man xam naa dama koy jéema tënk ci ñetti point rek muy li njëkk muy imaan mhm. muy ak ngëm mhm. ndax euh, jullit bi moom rawatina sax taalibe bu gëmee bu noppi moom euh, ngëm googu da ko yóbbu ci lépp loo xam ne da koy jëfati wala lépp loo xam ne da koy defati maanaam da ci da day wéy ci di ci seet suñu borom mhm, mooy day wéy ci di ko def di ci bàyyi xel sëriñ bi mm-hmm. ndax feek maanaam taalibe bi lépp loo xam mu ngi koy jëf tey toog di xalaat ne maanaam lii may def ne kër sëriñ bi mu ngi koy gis amaana da ko yóbbu ci maanaam euh, maanaam islam mooy di jëf lu baax tey moytu lépp loo xam ni safaan bala euh, dama naan xasida yi li ñuy bari bari bari bari bari benn finalité rek la ñu am mm-hmm. mooy sëriñ bi li ñu jublu mooy ñun ñu jub loolu dong la ci sëriñ bi jublu mooy taalibe yi maanaam comme li Moussa wax sànq daan di ab ju ab taalibe moom day jëf-jëfinu jullit ba noppi waaye di jëf leneen loo xam ne nii maanaam jullit bi du ko jëf lu ci mel ni maanaam ci ci fii yi nga xam ne mu ngi koy def lu ci mel ni maanaam jëf lu baax li nga xam ne moom moom da koy def ndax taalibe bi damaa njort ni moom ab missionnaire la ndax masalan suñ suñ Muhammad koñ bi mu nekk sax moom war naa fexe ba xam ne mu xam kook mu ñàkk koo xam ñu ngi koy bàyyi xel te am na ci ñoo xam ne fi ne nii yàkkamti na si ñu Muhammad jëf tey jii jënn jëf joo xam ne ju ju doyodi la mhm. ba ñu far ci maanaam doxe ci dat ci maasale murit ñëpp kon loolu itam mhm. day mat a bàyyi xel muy mhm. dugg maanaam ci biir islam bi nga xam ne moom laa wax ba di góorgóorlu sa kéem kàttan di jëf lépp ba boo moom da ngay dem ba di rafetal su ma soo wax na léegi mooy rafetal ci mbooleem jullit ñi waaye itam di rafetal ci maanaam mboolem sa diggante ak mbokk taalibe yi mm-hmm. ndax jamono toll na foo xam ne mm-hmm. maanaam mbokk taalibe yi waroon na maanaam defarante mm-hmm. mbokk taalibe yi nga xam ne waroon maanaam sàngante sutura léegi maanaam suñu biir mbokk taalibe yi lekk bëriwaan na ci yoo xam ne mu ngi ciy xew te maanaam bu doon xool nañ sëriñ bi suñu diggante ci suñu biir amaan na loolu mën naa ñàkk xam naa sànq laaj nga daat ni xëy na suñu borom xaw nañoo natt léeg-léeg ñuy xaw a dugg ci monde professionnel bi ak yu mooy suñu Moustapha Sànq junj na ko mooy euh, suñu borom daf ma daf ma mën naa ko tuddee nattoo semaine bi weesu rek ma demoon Dakar am benn séminaire boo xam dama cee ma cee demoon waaye euh, séminaire bi ma demoon maanaam directeur général bi mhm. maanaam moom Mbàkke la sant mhm. waaye yàlla xam na ni li njëkk dëkk sama xel mooy kii de bokkul ci ñuy rusloo sëriñ bi ndax donte ab sang la waaye kenn du ko fekk fii mu toog nga di ko jam man ginnaaw gi sax bi ma xamee ne ab sang la maanaam dama ci si dama dama cee siggi sagar ci ba bi naan mënoo tudd maa ko sëñ Mbàkke bëgguma yegg sax ci ci sekk gi ngir sekk gi nga xam ni gis naa ko ci moom maanaam mu koy mu koy mu koy sagal maanaam mbooleem koo xam ne nii rek maanaam maanaam maanaam jullit nga rawatina ngay am murit ndax sëñ Tuubaa moom loolu rek lay xaar ci ñun ci ñun mooy jéem a fexee jub jéem a fexe di góorgóorlu ci lu baax ndax mhm. nit mënu cee sax waaye nag saa soo jàddee ba xaw a am foo nekk rek maanaam nga jéem a fexe dawaat góorgóorlu sa kéem kartan ba jéem a tegwaat ci raay bi ndax fii ak ñu ci rek nañ jàpp ni maanaam li sëriñ bi bëgg ci ñun mu ngi koy am mhm. waaye fii ak koy wàcc rek nañ jàpp ni itam maanaam li sëriñ bi bëggoon ci ñun kat ah ñu ngi koy ñu ngi koy tàmbalee wàcc xaw ma ndax euh, li ma ci kii. <laughs> jërëjëf jërëjëf ma ne ko jërëjëf suñ Mbàkke euh, si leeral gu am solo googu nga xam ne euh, yaa ngi ko doon leeral mbokk euh, taalibe yi comme ni nga ko waxee rek kon xam naa rek noonu rek lañuy ñuy daal di def di santaat bu baax a baax yéen yi nga xam ne yéen ngi yéen a ngi doon topp émission bii di Mawridu Ridal Xadim xam naa nag suñ sëñ Mbàkke sëñ subaa thème bi maanaam dam maa ngi ko maa ko initié ci sama benn ndeysaan sama benn docteur c'est un grand homme Euh, ku ñuy wax euh, docteur Abdoulaye Idrissa Dieye euh, maa ngi koy ziar bu baax bu baax di ko jox wàccuwaayam à l'avance waaw docteur moom dafa ma yoroon lu ñuy wax éthique des affaires léegi nag te éthique des affaires moom mu mbubboo loo xam ni maam li muy wax maam fi mu ne nii dañ kaa dañ kaa war a waxtaane si murit gi bon moom posé ko benn question mi ngi nii docteur Abdoulaye maa ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay euh, léegi nag ma posé ko ni ko euh, mais docteur euh, est-ce qu'on peut parler d'éthique dans le mouridisme mun ma bien sûr on peut on peut parler d'éthique dans le mouridisme parce que le premier pilier du mouridisme c'est l'éthique ah ma ne ko loolu nag kon de bu soobee yàlla dinaa si ànd ak samay kàngam incha allah daal di si def émission maa ngi koy ziar di ko nuyu à l'avance kon xam naa suñu bàkke suñu misfaa li ñu dese si waxtu bi. day mel ni jeex na euh, kon xam naa dañ leen di daal di jox waxukaay bi ngeen daal di tàggatoo di leen wax tamit euh, sant nañ bu baax si dal dalal gi nga xam ne dalaloon lañ leen ko waaw ñu ngi si sant bu baax a baax a baax kon xam naa suñ suñu Moustapha euh, say kàddu tàggatoo rek. xanaa di sant bu baax mboolem foo xam ne rek waxtaan wi fii dana fa agsi mm-hmm. di gën a suñaat itam ndaw ñi ni ko sëñ Mbacke mi waxee rek. daanaka kuy tuddoo sëñ bi moom suñ la gisee rek war nañoo mën a gis makarama axlaax mu wër la gis ak njub te sori mboolem dani ay mooy jikko yi suufe yi ndax ni ma ko waxee rek yow yaa war a man ñi nga xam ne ci lislaam képp lañu ñu yem sóobuunu yoonu tasawuf muqtasiduna yaa leen yaa leen war a man kon nag loolu mooy xëdëf bi tax Majmahun nii di def lu mel nii moo tax itam ñuy xool thématique yi mel nii di ko jàng sëñ Mbàkke ñu ngi leen di sant yéen itam baax a baax ci taxawaay bi si loolu sax daara ji mm-hmm. euh, maanaam sooy xool euh, mañ waxoon noo reeni gi mm-hmm. dafa lënkale élève mm-hmm. ak étudiant euh, des mourides de Thiès moo tax yu mel ni maanaam mënu see ñàkk di waxtaanee loo xam ne c'est c'est c'est c'est professionnel quoi envers le mouridisme maam loolu munu see ñàkk daal moo tax daanaka ñu indi woon thème bi am na solo loolu yaa Mouhamad kon nag ni ngeen xam ne daanaka am na lu ñu Sëñ Tuubaa waajalal daal loo xam ni su ko deful woon ci wàllum mbind sax mhm. mën naa jafe ndax tey lu mel ne tasoo du sixaar mhm. tasoo du subaan mhm. jisbatu sixaar maa ju xadaal xaaj mooy ni mu bëgg am murid mel ni ñu mu jàkkaar looloon bind bind ko ngir ñoom téere yi bind ko woon ngir Cheikh Ibra bind ko woon ngir Cheikh Massamba Diop Sam bind ko woon ngir sëñ daam ndax ñoo ñu ni sëñ bi bëgg ku ni mel ñoom meloon nañ ko waaye ñun ñi war a ñëw tey képp ku naan ndaw la naan su ma fekkoon sëñ Tuubaa dama fay dem ni ko ni ko loo may dénk wala loo may wax lim la war a wax wala lim la war a dénk wala lim la war a tarbiya mu ci tasawur sixaar te wóor na li la tàmbalee ci yaqulu man lay seysar yoxmadu ba fi mu naan xunan taxa tasawur sixaar yi li fa nekk lépp moo ko wax mooy kenn ko ci ndekk kon yow lay waxal foofu mooy faaw ñu boolee di jàng di dajalewaat xikam yi itam di gën a soññ ko waat ñu xam ni eh, yoon yoonu murid loolu la laaj mooy ak góor góor la laaj ñuy tuddee ak tajallut ni nga ko waxee léegi te lenn lu ci nekk itam nga koy natt ci yoon wi àddina itam dina ñëw di dañ yoon wi léeg-léeg di ko mbëkk mm-hmm. indi xeetu xew-xew xeetu gis-gis ak yooyu ba gis dangay gis murid yoo xam ne aada mooy seen aada mooy dañoo bàyyi woon ak seen lépp ak sëñ bi waaye dañuy mujj waat ni lëjj ci àddina maanaam jël ay position sori ca lool ba léeg-léeg sax ñu jël seen i da ca tàbbal léegi jël si mboolem seen yitte di ko def ta murid moom mm-hmm. li koy jariñ su yoroon lawhil mahfuz dina gis ni sëñ Tuubaa képp la ko yàlla def mooy mooy mooy ndax ba nga génnee nit ñi jëm si sa boroom léegi mm-hmm. saw ñam ku la ko dagal ca ca fa nga ca nit ña boo ko wàññi koo jël si waat ko lay doon ci yow waaye yow boo loo gën a wëy li sëñ Muntaxa naan nañ nañ gën a dëgmal sëñ bi dañ ko gën ni dànn mooy dafa xam ne ci la suñu njariñ nekk kon kenn ku nekk ci ñun na gën a tekki ko ci yu bari daal yoo xam ne àddinaa ko ko tënkee mu tekki ko ko te ji ma mën a jëm ci borom ndax li nit gën a ragal mm-hmm. mooy tax mu avancé te mooy ma nga ne mooy di ko joxoñ naan moom dara safu ko nit ñi fii ak yaa ngi seen biir duñ la joxoñ waaye ku ne ci biir mhm. demagoo ku leen bëgg a raw da nga leen di génn mhm. su leen génnee nag nañ la joxoñ mhm. ki ngay joxoñ moom xamal ni génn na nit ñi léegi te lan la nit ñi gën a raay léegi wax day génn gaañu joxoñ ko rek mu jéem a dugg si waat ci biir mbooloo mi fekk mënoon naa wéy rek bu wéyee dana àgg kon yàlla na suñu boon defal ak àgg di sant bu baax a baax techniciens yi di sant itam groupe bi yëpp maj moom noo leen gis naa seen taxawaay ci mbooleem Euh, xew-xew yi nga xam ne ñoo ngi xew ni ngeen koy couvrir rek ni ngeen di mm. seeti jee ñi ngeen jàpp ne ay borom xam-xam lañ mm. di am ak ñoon ay ay jotaay di ko immortaliser mu ba xam si tey waaw wax dëgg yàlla tey mm. jii ku xool seen kàggu di nga fa fekk euh, émission yu am solo gis euh, baax a baax a baax si teewaay bi ak jàppandi gi yëpp la ñaanal suñu boroom gën laa dooli tawféex barke borom Touba ah sëñ Bakke sa kàddu tàggatoo yow moom xam naa da ngay tàggatoo eh, yaay tëjaat émission bi si tàggatoo incha allah waaye léegi da ngay tàggatoo ak mbokki téléspectateurs yi rek incha allah. waa suñ sëñ Mohamed kàddu yi tàggatoo yi moom ay kàddu yu cant lay doon. ci jëmale ko ci mboole mbokk taalibe yi nga xam ni dañuy safoo waa Majmahun Nurayni TV di safoo itam waa Majmahun nii de manière général ndax eh, fi mu ne nii suñu borom daa dogal. boo nee sëñ Mbàkke amaana di nga ni mañ ma honoré ni te yooyu ay xeetu sakk la yoo xam ne maanaam bu la ko nit defalee jot na nga sant ko. am pàcc boole ma si ak dëgg yàlla suñu Mohamed waa xam naa ak yow mi nga xam ne yaa yaa ñu yaa ñu dalal ci. ci ci émission bi ak sama sama sama jaam bi nga xam ne xam ne bu ñu génnee foofu dama koy summi. sëñ sëñ Moustapha waaye ay kaddu yu cant kese lay doon maanaam jële jëmale ko itam ci mboolem mbokk taalibe yi. ñi topp émission beeg maanaam ñi ko topp rek waaye fi nga xam ni foofu lay daanelee rek mu doon lu gàtt suñu mamet mooy di soññaat maanaam maanaam ndaw ñi surtout mhm. ci ñu gën a góorgóorluwaat ci gën a gën a gën a gën gën a gën a ci bëgg lu baax ndax euh, dama naan euh, génération bi mujjee ñëw amaana xëy na bëgg nañ lu baax waaye xamuñu fu ñuy jaar léegi nag day mat ñi nga xam ne suñu borom xam na leen dimbali as tuut mhm. ñu xaw a ñam sëriñ bi maanaam di leen di leen maanaam di leen di leen di leen xëcc seen bopp waaye léegi jamono daa toll foo xam ne ndax suñu musuwaa lii mu def mhm. du du mën naa jekk gis mën naa jekk ci ndaw ci gis-gis mooy nga bàyyi ko mu dagg yitteem yépp ñëw te mënoon ci maanaam laaj lu ne baa mu def ci lu ne ngir mën a yegsi fi ndax bu dee xam-xam suñu borom dénk na ko ko bu dee amaana jot gi sax mayu ko ko mhm. waaye yii muy def nii lii dafa raaf léegi mhm. mooy di fexe ba saa su ne li la suñu borom dénk ak akus néew ci ak xam-xam nga fexe ba di ko jariñ maanaam ñi nga xam dañoo topp sa ginnaaw mm-hmm. ndax fii lii ngi am rek amaana réer gi ak saaw gi mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa mën naa bañ a mën naa bañ a jafe te wax dëgg yàlla sëriñ bi dafa waxoon lu am solo mm-hmm. mu ne saa su la nit dëgmalee mm-hmm. ngir maanaam gëstu samay mbir maanaam ngeen won ko lu tax mu dëpp ba ñëwul gëstu samay mbir ba danaa ko dana dana danaa ko layoo génn loolu nag kon ku ci nekk war na ko war na ko war naa fexe di ci góorgóorlu maanaam kéem kartanam ba mm-hmm, mm-hmm. saa su ne wax dëgg yàlla mm-hmm. gis gi may gis sëñ Mbàkke di xaw yëg ci moom sañ tubaa bu ma demee ba saafoonteeg moom naa fexe ba sëñ tubaa googu yokk waaye sëñ Tuubaa googu bañ a wàññeeku salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Mbacke. jërëjëf euh, si tàggatoo bu am solo woowu ak soññe bu am solo woowu yow ñu ngi lay santaat bu baax a baax di la ñaanal euh, sëriñ bi nga tax bi tax maanaam ngay def lii yan na nga si dajeeg ngërëmam euh, kon xam naa nag fii la émission bi di yam rek waaye dañuy tàggatoo rek di santaat bu baax a baax a baax waa régie bi nga xam ne. Euh, ñoo nekkoon si caméra ak yooyu Euh, suñ si tuddee suñ Mbàkke rek daanaka day yóbbaale ñëpp euh, ñu ngi leen sant bu baax baax day mel ni lu fi jag rek euh, ñoom la kon yéen mbokk taalibe yi nga xam ni saa su nekk yéen a ngi topp émission bii di Mawridu Ridal Xadim maanaam am nañ mbégte bu baax a baax a baax si bégal bi nga xam ni ñoo ngi leen ko doon bégal waaye am nañ mbégte mu ko raw si topp nga xam ne yéen ñu ko doon topp kon xam naa noonu rek la ñuy daal di def di leen daal di jox dig daje si beneen émission incha allah kon xam naa suñu bàkkee nga daal di tëj jotaay bi rek si xasida على من علي ولست صديق له كلها من عدايا مديق على من علي ولست صديق له كلها من عدايا مديق salaatun tuwaasi salaamal ali bi alin wa saxbin wa kulli nasiix adiimu sanaahan alal murtajaa wa sallu alayhi salaatan nasuux أديم سناها على المرتجى وصلوا عليه صلاة النسوخ فإني أصلي عليه عنا بآل وصحب وكل صليح إلهي فصلي بغير انتهاء على المصطفى ذي المحيا سبيح إلهي فصلي على من أتى محبا محبا صبورا سفوح إلهي فصلي على من بدا تقيا نقيا رئيشا رجوه إلهي فصلي على من هدى متيحا متاحا لرسد الجنوح إلهي فصلي على من دهي ببر وماح لكل حبيق salaatan takuuful balaa warradaa tajuru munan laa tashuubu mashuuq salaatan turaaqi linaylil ulaa tuqawwil uquula bi aqdin saxiix salaatan tajuudu bi xayrin munan يزول بها عيب نفس وروق صلاة تريني أنا وجو عيانا ليشفي قلبي جريع صلاة تريني المصلي الذي دعاه العين لشيء مطيع سرفت لساني وقلبي معا إلى المبتحى من عقير فتوح إلى المصطفى المنتقى المعتبى عنيت الكريم شفيع النسيق هو المهتم المتفي المتفى bi walwakilul ajirul rabuux muraban murabin rasulin nabi najiyu ilahil kalimul fasiix adimum tidaaxan libaarin nadaa jazilil luhaa fatanaalur rabuux أديم سناعا الذي خاد خوات سجايا الكرام بفضل المنوخ فلا ينبحي أن يفو عن زكي بمدح عجيب لخير سموخ فمدح النبي الكريم العلي يكوف الأنا والردى والفدوق يسافي فؤادا أراه الأذى ويالو صدى وظلاما تموق جميل المحيا زكي العجاب مبر مع ذل كل طريق زيم بكشف الكروب الذي يلوز به لالتقاء دموع حرام على من أداو الأباء بخول جنان دخيلا طريح ومن لم يلينا ينتظر بقل ثقيل ونار لفوح طفونا على خيرنا بالعلا إذ المصطفى قد طفى بالرجوع مدحت النبي الكريم سقي وأرجو به دهر أن لا أتوب حميد إلهي الذي جرني إلى خدمة المتباصي الفتوح حميد إلهي يا حمدا يفي بخير مضيد على ما أتيح حميد إلهي الذي جرني إلى خدمة المختفى ذي السموخ حميت إلهي بشكر له على جذب قلبي لحب الصحيح بحب رسول الذي سرمدا أصلي عليه بمدح مليح فكن سيد للقديم دني شفيعا ليوم الأنا والكلوخ عليك سلام الذي أفتحي لدي ختاما بفوض يريح عليك سلام الذي أبتغي لديه ختاما بفوز يريح سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amantu kama